mbokk yi jàkkaaruñ ci dañu seetaan dañuy seetaan nag ci biir réew mi ak bitim réew kenn ku ci nekk ñoo ngi lay nuyu di la ziar baax di ñaanal sëriñ Ahmadul Muxtaar xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha mu yàgg fi loolu ci ànd ak wér ba mbooleem ay naalama ki sumbam mu eggale ko defe ko nu kawe njortam mbokk yi euh, ju ngeen jàkkaarloo ci waxtu wi ci bërëb bu tedd bërëb bu sell bi nga xam moom lañ nekk mu di kër sëriñ Mbacke Mohamed ngeen xam ni kon ñu ngi ci wàccaay bis bi nga xamante ni mooy ñaar fukki fan ci weeru Muharram di bis bi nga xamante ni ci la ku tedd ki di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fanaan seewoon ci dëkkam bu sell bi nga xam moo di Touba te Cheikh Mouhamadul Moustapha jàmbaar ja indi ko moo tax nag commission bi nga xamante ni bii mooy daayira bi diwaanul dina lëkkale mbooleem bunti kër yi Cheikh Mouhamadul Moustapha yëpp ci njiital Serigne Ousmane Mbacke moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma joxe ndigal commission intique bi nga xamante ni ñooy saytu lépp lu jëm ci communication ci màggal gi ngir ñu tasaare information yi fi wàccaay yi tolloog yu mel noonu moo tax ñuy ndokkeel baax sëñ Moustapha Mbacke Mouhamad di xalifa sëriñ Mbacke Mouhamad di ko ñaanal yàlla guddal fanam yokku wéram ba mbooleem ay naalam ak sumbam mu eggale ko defe nu kawe njortam moo tax nag bi ñëwee ci daayira bu am solo bi nga xamante ni mooy daayira ahibayil xadim li nusrati diinil xawim ci daayira bi nga xam moo lëkkale kër Cheikh Mouhamadul Moustapha euh, Mouhamad gi moo tax bi ñëwee itam fekk nañ fi ki nga xam ni moo di sëriñ Modou Kane mom lañ fa yéenee andal jotaay bi nga xamanteni ni dina toll ci fukku japp fukku simili ak juróom kon suko ko ñu fa yéenee and ak mom rek jox sëriñ Modou mu nuyo su nuyo itam man nañu tabalé direct rek ci euh, laaj bu njëkk bi muy euh, jamono ji euh, sëñ mustapha taxaway bi nga xamni amna ko ci daayira bu sel bi nga xamanteni amna ko ak daayira bi sos gi fan lañ sabab bi. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala hadil amin bok jullit yi ni setan ngi di nuyu. Eh, di leen siyaare di jël kàddu gi ci waxtaan wi nga xam ne moom la sëñ Moussa ubbee léegi donc jiital ci nuyoo bi eh, sëñ Ahmadul Muxtaar mi xalifa Cheikh Moustapha di ñaan sunu borom guddal aw fanam ba yàgg mu yeggale yéeneem di ñaanal mboolem njabootuk Cheikh Moustapha gi yëpp buntu kër Cheikh Moustapha yëpp noo ngi leen di siyaare di jiital ci nuyoo bi sunu sunu sëriñ sunu jëwrin Cheikh Moustapha am sëñ Mbàkke soxna loo di ñaan sunu borom guddal aw fanam li mu yéene liggéeyal sëñ Tuubaa sunu borom jàppale ko ba mu man ko ni mu koy yéenee te ànd ko ak nun ànd ko ak taalibe yëpp. ni sëñ Moussa waxee léegi rek kàddu gi noo ngi koy jël ci turu Cheikh Mouhamadul Amin Baara mi nga xam ne moo jiite ahibahil xadim li nusrati diinil xawim fi nga xam ne moo lëkkale mboolem sections yi nekk ci senegal ñu di ko wax rek groupement des daayira ahibahil xadim li nusrati diinil xawim sëñ mooy sunu jëwrin ci liggéey bi nag ni mu ko waxee xanaa Ahibaa al Xadim day kuréel goo xam ni. Cheikh hmm. Moustapha sëñ Mbàkke Soxna loo euh, bi mu bëggee taxawal mbooloo mii fas yéene ya ànd ak ñoom liggéeyal yàlla def leen jumtuwaay bu muy liggéeyale yàlla euh, dafa woote mboolem ñi nga xamante ne ñoo di njabootam ñu daje mu jox leen ndigal ci njiiteelu Cheikh Mohamadul Fadil rakkam di ñaanal suñu borom yàgg ko yàggal ko fi loolu moom itam te wéral ko. mu euh, ànd ak lenn ci bokki taalibe yi ñu taxawalal ko liggéeyam bii di Ahibahil Khadim bi mu joxe ndigal ñu di ci dox dox ci ab diir moom ci boppam mu jóg solal boppam aw dàllam mboolem foo xam ni ku aju ci moom nekk na fa mu di seex mu di ab section kenn ku ne taxaw na ci sa ëtt dajale say taalibe wax yow ci liggéeyam bii di ahibaahil xadim li nusrati diinil xawim ngir yéen a ju mu am ci liggéeyal yàlla yéen a ju mu am ci liggéeyal sëriñ Touba te mun ñàkk ñu mu ko àndal wax ne jumtuwaay bi mu bëgg a liggéeyale yàlla mooy ahibaahil xadim te taalibe yi ñoo di ci ay àndandoom ñoo ko ci gunge bi muy def tournée mboolam jiitaay boo xam ne def na ko euh, soññee na ci bisub sëriñ Touba bii nga xamante ne bii mooy isrina muharram di bis bi sëriñ Touba fanaan woon Touba mm-hmm. dëkk bu mu yendu wala mu fanaan fa dajale fa mbooloo ma fa nekk moo xam ab seex la ak taalibe ca ginnaawam moo xam ab section la ak ak ak membre yi ci aju yëpp fu ci nekk sëriñ bi dajale na leen wax ak ñoom jox leen ndigal ci ñu taxawal Ahibahil Khadim euh, mu tëralal ko aw yoon woo xam ni noonu lay doxe bi mu taxawalee biir réew mi ba noppi it mboolem seex si nga xam ne ñoo aju ci moom te ne ci ginnaawam euh, te te te jamono yi ñu toll yàlla sunu borom dogal sëñ Mbàkke gi na kanam da nga koy ñaanal gudd ak wér yaram di ñaan mu yàgg a jiite mboolem seex suusa nga xam ne ñoo ne ginnaawam seex suusa yëpp it jox na leen ndigal ñu ñu ñu ñu def benn mbooloo àndandoo bokk ci ay baayil xadim bi te di ci dox jox na ndigal it mboolem dongo yi nga xam ne ñoo ci ginnaaw sëñ baaraloo ñoom itam jox na leen ndigal ci ñu àndandoo taxawal ab kuréel tuddi ko ay baayil xadim di ci dox diaspora bi sëñ Baara Sall na ci seen kanam jox na ndigal mboolem ñi ne ci diaspora bi ñëpp mm-hmm. ñu àndandoo ñoom itam nasu nasu ci benn buum aju ci ay baaxil xadim ansaar diin xëy fi ne jamono yi ñu toll sax mu nga mu Europe moom sëriñ bi nu ñaan sama borom delloosi ko ak jàmm ñoom it jox na leen ndigal ci ginnaaw sëñ Mbay Gay mboolem lu aju ci ansaaru diine ansaaru diin boobu ñu lëkkaloo nasu ci mboolem réew yi nga xay ne ñoo bokk ci ci mbooloo moomu ñoom itam ñu nasu niñ tudde woon ansaaru diine waaye nag ñu bokk ci ay baaxil xaddim ñoom itam ñu ngi ci dox bu baax a baax mu mel ni kuréel yooyu mu nas mu def benn confédération des groupement ay baaxil xaddim yi confédération bu nga xam moo lëkkale mboolem juróomi kuréel yooyu ma wax muy ñi ne ci réew mi ak ñi aju ci seex si ak ñi aju ci ansaar diin ak ñu aju ci dong yi ak ñi aju ci diaspora bi juróomi kuréel yu la lëkkale nas leen ñu àndandoo ñoom ñëpp mu leen ay baaxil xaddim di nosrati diinil xawim kuréel yunak, nag ñoo di jumtukaay ni ma ko waxe woon yi mu fas yéene ya àndal liggéeyal yàlla muy jëmm joo xam ne nag sunu borom mi nga xamante ne bii moom la soob te nu neex mu melal na nit moko moko melal ni mu mel li itteem di ligi yàlla ak sëriñ Touba donc ñaan sunu borom yàlla jàppale ko ci ba ni mu ko koni, mu ko ko ni mu mane ko ni moom mbooloo mi mu andal euh, li limu len waxan moo doon bis day mooy bis yi nga moom moom tegagul na ci loxo bëgguñu ñu jëme ci sunu it yëpp benn bis bi mooy bisub sëriñ Touba bii ma ci la sëriñ Touba ñibbisee woon Touba bis bi nga xam ni liggéey bi mu doon liggéeyal yàlla li mu doon yàgg yàgg li mu doon metti metti bis yooyu yëpp doon ko sonn nekk ci loxo tubaab yi diirub juróom-ñetti at yi manqué tuuti lépp te bu liggéey bi matee te waxan ci wax sunu borom ni ko euh, bis bi gën ci samay bis mooy bis na doon bis bi may daje ak yow. ndax nañu soo demee ci mawaahibul xuddóof xuddóos ca lay wax ne allahumma ij'al li xayra ayaamin yawma alqaaka nag ma defal bis bi gën ci samay bis muy bis bi nga xam ne ci laay daje ak yow bis boobu nag Cheikh Moustapha wax ni nañ naa ci Ahibahil Khadim bii tàmbalee seenub liggéey muy bis boo xam ne su dikkee mboolem foo xam ne ci Cheikh Moustapha nga aju moo xam ci réew mi moo xam ci bitim réew moo xam ci diaspora bi ak Cheikh Seck dongo yi mu jox leen digal ñoom ñëpp ñu daje taxawu bis bi ba bis bi mel noo xam ne dina ko njort te jàpp naa ni eh, depuis ba mu joxee ndigalee ak léegi ku ku ku ku fi ñëw ku nekk gis nga ni bis bi jox nañ ko wàcc waay boo xamante ni bii eh, jamonoy Serigne Cheikh ba léegi ñu ngi koy amal jamonoy Serigne Mbacke noonu yal yàlla yokk seen leer gis nañu ni dimension bi Serigne bi yóbbu fi ne ni màggal gi ci kër gi moom moom moom ñoom ñu dox nañ ci seen kem kartan waaye ne dimension boobu yëgguñu ci woon. te te te mbooloo mi nga xam ne ñoom la nos dénk leen ko taxawaay boobu ñoo ko ci taxaw. ba tax bis bi egg ci daye boobu mu waxaat nit ni bis bi nga xam ne moom la dolliwaat muy bisub ngan gi muy def sallallahu alayhi wa sallam di bisub gàmm mu waxaat ni moom itam jox na ndigal mboolem kuréel yooyu su gàmm jotatee ñu àndandoo dem Taayif ci barab Cheikh Mouhamed Mbacke ba fanaane ko fa yendoo ko fa màggal fanaane ko fa màggal ba xëy mu yeewi nit ñi ñu delluwaat bis booba itam ku ne xam na ni euh, nii mu koy organiser nii mu koy amale ca Taayif mën nañu ne ci jamonoy Serigne Touba la ñu mujj gis lu mel noonu ndax moom bu xësee xëyee këram ñëw ci baas bi ci suba gi fi lay nekk ak mbooloo mi ba leen tisbaar ànd ak ñoom di durus alxuraan ak xasaayit suñu jullee tisbaar ab diir dina dugg ci biir su génnaatee moo leen di jiitewaat takkusaan àndaat ak ñoom liggéey bu ba jiitewaat leen gee doo ko duggaat ci biir su duggaatee ci biir itam ginnaaw gee di bu génnaatee bala muy wat ci baas bi day na suba ñu ñu ñu égalé mu def ñaan dora dor del wat ci bir té lépp nak ci suuf lañuy tok durus alquran ak xasaayit melokaan waxante yemen lol. na lool. jëf serigne Modou kan ci léral yu am solo yi nga xamanteni ni indil ngënu ko ci li sabab sang bu tedd bi nga xamné ne serigne mustapha mbake mohammed borom Nebo ji taxawal liggéey bi xamal nga ñuy dara wu ko lu liggéeyal mamam Cheikhul Khadim daayira bi di jumtukaay bi nga xamanteni ni ci lay jaar ba meuna Cheikhul Khadim ci nim ko beugé wax nga ni ñaari momla yo xamanteni ni mom na la fonklu yo xamanteni taxaw na ca kemtulaayu katanam waye tam kep ku and ak mom nek ci ginaawam nga wax ni juroomi kurel yëpp taxaw na wax leen ñu taxaw ca seen kemtulaay katan mu tambalé ci bëss bi ñu dëgmal di euh, bis bi nga xamni maam ju tedd di sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma amoon na ci taxawaay waaye itam way juróom wa sell wa di sëriñ Mbacke Mohamed kazalika kanaka noonu ndax seen maam di sëriñ euh, Mouhamadinil Moustapha moo ko sosoon ngir lan ngir fàttaliku Seexul Xadim ak ñaanal ko kon loolu di lu am solo mu mel ni kon nag euh, wax nga ni yéen ngi ci wàccaay wér a wér fi mu toll nan nga ñu mën a wax nag wàccaay fan lañ ci toll ak nan lañ koy waajale ak lan ngay wax taalibe yi nga xamante ni ñoo ci ñëw ci tënk ñu soog a mën a yëkkati jotaay bi jërëjëf niñ ko fas yéene waajal rek mooy niñ ko doon defee te fas yéene mu mu mu ëpp loola li ci jiitu na ci bis bi mooy jàng alxuraan ak xasaayit ku ne xam na ni sëñ Tuubaa yitteem jëpp moo doon jàng alxuraan moo doon yitteem ndax lu bari ci la ko amee euh, alxuraan ak xasaayit la sëriñ bi wax itam ni suñu xëyee nañ ci yendu fanaane ko ba asamaan set loolu bokk na ci li nga xamante ni bii mooy waajtaayu bis bi leen li des nag mooy. commission organisation bi nga xam ne alaaj Ndiogu Fall moo ko jiite ma topp ci moom te di ko ci saytu ñoom it euh, tàmbali nañu seenub liggéey tey jii nii ci baas bi fii ci buntu kër sëriñ bi xale yi ñu ngi jëli bagage yi di ko indi parce que seen soo bu ñu xëyee tàmbalee samp baas bi euh, fas nañ yéene bu ko yàlla dogalee bala ajjuma lépp baas bi dina noppi wàccaay wi itam bokk na ci fas nañ yéene su ko yàlla dogalee kër gi nga xam ne mooy kër Cheikh Mohamed Cheikh Mohamed Mbacke sëñ Moustapha Mbacke di jëwriñ ji ñaan sunu borom yàgg fi lool te wér euh, mu ñu fas yéene képp koo xam ne wàcc nga fi di gan tiraanga ja xam ne war na ci yow ci tiraanga ji ñu war a teral gan ak goo mën a doon rek fas nañ ne tiraanga ju tol noona su ko yàlla dogalee soo ñëwee di fekk loolu tax na nag ñu ngi woo mboolem taaliba yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal kër gi di mboolem tool bi xam ne bokkal lislaam ji di mboolem tool bi xam ne ñoom la ñu bokkal daaru xudoos ndax wàccaay woowu la kër yëpp di wàcc kër Cheikh Moussa yëpp ñu ngi wàcc wàccaay yu toll noonu waaye fii ci nun moom mboolem ñi nga xam ne ñoo aju ci kuréel yu ñu doon lim ñoo ngi leen ciy soññi di leen wax ne nañu yokk seen seen wàccaay fa su ko yàlla dogalee nañu ko doon defee at yàlla yëpp ren ren faw xa ko te rafet nañu ci njort ndax rafet nañu njort mooy mboolem la ñu ci doon def te te te wërsëg di ko def yokkees na ko ba jàpp nañ ni eh, lu ci war di dina mën lu ci war wërsëg def des na ko mën lépp loo xamante ne carte na koy def waajal nañu ay ndaw yoo xam ne eh, muy commission bi nga xam ne ñooy organisation ak commission sociale bi ak éducation culture ñoom ñi nga xamante ni ak communication ñoom ñi nga xamante ni ñoom kenn ku nekk am na lu ñu la dénk ci bis bi kenn ku nekk la ñu la dénk mu jëm ci bis bi ngir bis bi sotti yaa nga cay dox doxin woo xamante ne bii jàpp nañ bu ko yàlla dogalee ñu egg ca. dina mel nu ko njort di ñaan sunu borom subhaanahu darajey bis bi sunu borom yàggal nu fi Cheikh Moustapha Mbàkkam sëñ Mbàkke soxna lu mi ba lépp loo xam ne yéene na ko liggéeyal lislaam yéene ko liggéeyal maam ja xaadimu rasul yéene ko ci jullit ñi sunu borom dimbali ko ba nam ko yéene mu mane ko noona wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëriñ Modou Kane macha allah euh, jërëjëf ci wàccaay wi ni nga ko waxee ndax kuy waajal ku toll ni seexul xadim yaakaar naa ni wàccaay wa nga koy waajal daa nekk wàccaay wu nga xamante ni mooy wàccaay wu gën ci wàccaay yi tubaarkàlla macha allah xel gën naa dal njortu gën naa rafet yaakaar itam gën naa yokk ci sëñ Moustapha Mbacke Mohamed ngir jumtukaay yi nga xamante ni yàlla may na ko ginnaaw ba mu sosee bi nekkoon jumtukaay jumtukaay bi itam xam nañ fa sëñ bi bëgg euh, ñu teg fa tànk seen tànk ñoom itam ñu teg fa seen tànk ci jëf ak wax ak ci côté boo xamante ni mooy côté liggéey bi macha allah mel ni kon euh, li ciy programme mooy bis ba itam dien fi amal jang alquran jang khasaid istighfar salatu ala nabi mbollem lo xamanteni dañ koy def ci lu bax rek inshallah rabbi dien ko matali fi su ne ba 23 h nak serigne bi genn ci buntu bi ñu def waxtaan wo xamanteni amatan lay doon lepp serigne bi dénk ko mbokki taalibe yi ni ko Cheikh Moustapha daan defé kon ñu ngi sant yu gërem di alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sigel madru nan ci yow bu te bul faale ka wuy seek ka ki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na ña daawote ña daawaate Moustapha